Euh, jërëjëf thank you very much euh, ñu delluwaat fii si Star TV Sport euh, Bantaba nekk programme bu nga xam ne rek far na di ñëw every week fii si biir lii di kër ji diggante 11 am ba 12 pm fii si biir lii di ama kër ji ñu jégalu bu baax a baax nag si léeta door bi rek jamono bu nga xam ne ñu ngi doon def ñu kéemtalaay kattan pour am rek Gambian players yu nga xam ne ñu ngi foofu sa bitim réew di fa play lii di football ñoom nag na ñu nga xam ne tey ñoom la ñu waroon a am dinañ leen am tey fii si biir lii programme bi waxtaan ak ñoom si wàllum li tàggat yaram waxtaan ak ñoom tamit si lu ñu nekkee foofu si bëtim réew si ama ah, covid 19 bi xam nañ ne ndaw yi ñu ngi train bu baax a baax waaye tamit rek bëgg nañ ñoo waxtaan ak ñoom ah, pour askan bi rek xam ne ah, jamono bi players yëpp ñu ngi si ama dal jamono bi foofu si bitim réew ba tax na tey foofu sa bitim réew jamono bi ñu ngi am gars yi ñu ngi seetaan li di programme bi si kanam dinañ dugal gars yi ñu waxtaan ak ñoom ku mel ni kii di Lamine Diallo nekk foofu si biir lii di Italie ñu gën ko am kii di Beck Euh, nekk euh, ma scorpion a player euh, jamono bi ben tey kii di Wataman Wataman tamit kenn du faate kii di Wataman turam si football yi Gambia in general def na lu rëy si football yi Gambia moom it mu ngi foofu si biir lii di ama Germany moom nag dinañ waxtaan ak moom tey fii si biir lii di ama programme bi ben tey tamit am nañ kii di ama Omar Euh, Omar Diatta moom it xam ngeen ko bu baax a baax Omar nekk na ku nga xam ne jamono bi mu ngi toppali di Gambian bu baax baax euh, gis nañ sax nga xam ne far na di ko def euh, si Facebook bi ñuy gis tamit rek ñu koy jël tamit di ko def si website yi moom nekk na ku nga xam ne mu ngi bàyyi xel bu baax a baax di gestu li ndaw yi di leen won seen man-man ak lu nga xam ne moom lañ nekk di def foofu sa bitim réew soo leen bàyyi woon xel bu baax balaa ñoo cancel lii di géem mu ngi doon def very important klom euh, si pijam bi euh, di wane ne kan mooy diw sangam si players yi euh, moom Lamine moom Omar mu ko doon def benn tey fii si biir lii di studio bi tamit rek dinañ fi am ñaari guest nga xam ne dinañ waxtaan ak ñoom si wàllum lii tàggat yaram ku mel ni kii di Assane Bass dinañ waxtaan ak moom moom nekk nag nga xam ne mu ngi traîner lii di goalkeepers yi si bij bi loolu nag rafet nañ soo dinañ waxtaan ak moom lan moo tax mu jël ama jéego yooyu Euh, suñ paree nag kii di Moussa kamara kenn réelewul mbir kamara Moussa Camara euh, Gambien goalkeeper la euh, play na bés international team si fii si biir lii dem réew mi benn tey nekk ak lii di Gamtel football club moom nekk nag nga xam ne mooy suñu miin ges bu nga xam ne dinañ waxtaan ak moom di waxtaan ak lii di players yi dina toog waxtaan ak players yi direct foofu si biir lii di Europe Euh, tey nag ñu amaat kii di Ibrahima Kampo Diatta jamono bu nga xam ne nag génn na euh, Japon ah euh, ñu ñaanal ko bu baax a baax rek jabaram bu nga xam ne rek am na lii di doom bu góor <laughs> kon nag ñu congrats lii di Kampo looloo teewul kii di Kampo ba a join lii di programme bi Kampo ñu bala nga nuyu ah jërëjëf ah, Mbaye ñu nuyu ah, suñu viewers ah, yi ren ñu am na ñu ngi seetaan start start TV TNT bi ak Facebook start TV ak ko waxee rek <coughs> dig ñu war am am baax na ko waxee rek ñu bëri ñu mënoon di ma congrats suma euh, new baby born bi mhm. maa ko tuddee suma bopp laa ko tuddee sax mu <laughs> naa junior junior living euh, junior Ibrahima euh, Jaata rek so ah, <laughs> ah, sama mag laa tuddee ah, sama mag Ibrahima a ok di seen tan naa ko ooyee junior mm, ka mm. Ibrahima tamit still la bu suma tooma la so ñu ngi woot na gars stay tuned di so di welcome suñu guest bi ah ba def a Assane Bass ak suñu guest bi am Moussa Camara ak ñoom Bekk fële ak ñoom mm. Bekk di wane ne Ramadan Mubarak. Uh, so let them stay tuned and enjoy the show because it's going to be amazing show today. all uh, uh, uh, ñu bàyyi la ñu nga ne jamono bi ñu ngi laa seetaan. jërëjëf Mbaye Mbaye maa ngi lay nuyu di fay Kampo di congrats Kampo si xale bi yàlla ko gudd fan ak yaram. amiin man maa ngi tudd Assane Bass goalkeeper trainer Fortune FC. Hmm. man maa nekk di tàggat yaram di jàppale goalkeeper Gambia yi si bij bi. Hmm. ñu profité si coronavirus bi nga xam time amut. Hmm. ñu jàppalante one one by one daal di dimbalante. together. Yeah. alright euh, jërëjëf Assane thank you very much euh, kontaan nañ bu baax a baax si jéego yu nga xam ne jël nga ko pour jàppale lii di ama goalkeepers yi euh, ndig ne mun nañoo tap anytime rek ñu ne nañ door lii di ama play su boobaa nag ne ndaw yi bëri nañ soona fii si biir lii di ama réew mi kon nag kontaan si bu baax a baax lu ñu def rek mooy dinañ bàyyi rek gars yi mais ñu tuuti vidéo su nga xam ne rek Assane mu ngi ko doon def si bij bi ñu delluwaat waxtaan ak kii di Assane fii si Star TV Sport Bantaba with the same stuff you really think you're different man you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're irresponsible many obstacles, you gotta stop it, yo You gotta take it slow, you can't be a pro No, it's your time no more Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon And I'll do it cause it's what I wanna fucking do Cause all these opinions and all these positions They come in in millions, they blocking your vision But no, you can't listen, that shit is all fiction Cause you hold the power you're as long as you're dreaming make it. There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? fucking bite back Euh, jërëjëf thank you very much ñu dellu si waat fii si Star TV ama sport Bantaba loolu nag moo doon xew euh, si lu nga xam ne Assane mu ngi ko doon def euh, jamono bi foofu si biir lii di ama bij bi ñu kontaan bu baax a baax si Assane si ama loolu Assane tey ñu gis rek ne lu nga xam ne yaa ngi koy def bu baax a baax ak ndaw yi pour na ñu mënteen ama seen fitness si si biir corona virus bi COVID 19 bi. Hmm. lana indi idée bu rafet bi. d' accord mbay maa ngi lay maa ngi kontaan si question bi ma laajte noonu. parce que lii nekk na loo xam ne yàgg naa kaa bëgg parce que tey jii dajale dajale ay ay ay ay ay play di leen traîner dafa metti donc bi ma woowee ku si nekk sa numéro téléphone ñoom ñoom Njaabali ñoom Moussa ah, ñoom i Real Real de mhm, mhm. ku si nekk da nga sa soxla nga ñëw donc mun naa wax ne tey jii loolu rek mbégte la ma boole gars yi di leen traîner together sëf mhm. tey jii mun naa wax ne ñoom ñëpp boo xoolee ñoom ñoo a mag waaye déggal nañ ma ba pare gis nañ njariñ bi nga xam ne ni tey jii ku nekk bàyyi nga sa soxla ak weeru koor bi xam nga yaa si biir ñu ngi ñëw de. waaw si biir weeru koor bi gars yi ñu ngay ku si ne bàyyi sa soxla di ñëw train ak man daal waaw hmm. kontaan naa trop waaw waaye ku si nekk yaa ngi si gis sa bopp daal bu baax a baax alright uh, bentey rek uh, ñu gisoon rek ne comme noo koy da leen koor rek ñu ñëw uh, jamono bi ndax tamit rek yéen a ngee bàyyi xel bu baax a baax ndig xam nga government bi dañ joxe woon digal ne mm. bugguñoo gis daal ay nit yu booloo ba tax na nag ñu woon social distance bi si biir image bi nag ñu ngi gis lu rafet lu nga xam ne mu ngi xew social distance baa ngi am bu baax a baax a baax ñu rafetlu si bu baax a baax yan jeexu nga jël ba gis daal du am dara lu ñaaw lu nga xam ne dañ ko teg sa kaw waaw parce que tey ji lépp lu may def rek damay jiital mag yi nga xam ne ñoo nekk si biir tim bi mhm. like comme Njaabali mi fa mhm. toldo bi ñuy wax bijee mu ngi si biir tim bi mhm. ak Moussa mi nga xam ne mi ngi fa dan bi foo may def dara dama leen di woo téléphone pour pour informer daal parce que nit matut so xam ne nii damay invite six people seven people pour pour mun a nombre distance bi nga xam ne tey jii ñi dañ am training tey ñi mën a train si beneen bés bi pour ñu moytu xam nga feebar bi nga xam ne ni tamit moom lañ teg moom moom la ñu yàlla natoo daal. Mhm. waaw waaye xam nga rek ñàkk a toog pour préparer parce que kenn xamul kañ la ligue bi de stataat daal. Euh, jamono bi euh, si ban lebu la ndaw yi nekk si ban lebu kos toog nañ jour bu yàgga euh, defuñ entraînement jamono bi si ban leebul nga foog ne daal ndaw yi am nañ ko. waaw on right now comme comme jamono bi si li ma la mën a expliquer mun naa wax ne right now ñu si.

kon kon kon train bi pour ñu nekk fa together gis naa ne am na njariñ parce que ku si nekk yaa ngi si jàng sa morom ci order di dimbalante because of xam-xam yamut man mun naa jàng si Stek jàng si Moussa jàng si Njaabali jàng loolu tamit gën na tax ma boole gars parce que ku si nekk miinante together pour bu ñu demee euh, bokk national team wala under mhm. ku si nekk mën a xam sa morom daal together. waaw su ma jàngatee sa kaddu woon ne ndaw yi ñu ngi sona euh, si luñ dooree training bi kon dafa mel ni ñun problème bu mag mu ñuy xaar. waaw soo ko bàyyi xel euh, ute naa comme Europe. Europe seen players yëpp ñu ngi train individually yi. ñu ngi leen a xool bu leen bàyyi xel ni ñoo trainer ñu ngi um, uh, ñu ngi naan jox lesson. so dafa mel ni kon dafa mel ni goalkeepers yi ñu ngi train waaye players yi nekkuñ di play dafa mel ni kon dinañ face lot of difficulties. suñu bi dooree dafa mel ni soo dafa mel ni players yi nga xam ne play wuñ. Mm-hmm. ñu ngi toog problème yi foofu la ñoo ñëwee. very lan mooy sa message pour teams yi because lii lu important la. man sama message uh, comme li nga xam ne maa ngi koy jox. Uh, Euh, teams si nga xam ne ñoo nekk si Gambia football dan comme comme dañoo teg ay sart ne comme bu kenn train ci fili dan ku nekk war ngaa mën a jël sa individual training because of su fekkee ne yooyu play club si ñoo ko war a def waaw seen seen seen si ñoo ko war a def coach si ñoo war a joxe place yi wax leen seen leen message ku si nekk nga war a jël sa individual training because of right now mënuloo dajale benn team du leen mhm. train loolu mhm. soo ko trainer gars ñëw teg loolu loxo understand nga donc play coach si war nañoo mën a joxe ay message pour play si mën a def individuel training because of àdduna lépp loo day jeex lii benn moo time la rek so ñaan nañ yàlla tamit mu jeex mu jóge fi daal kii di Moussa waaye tamit rek ne uh, ku mel ni kii di Lamine Diallo ak ku ni kii di ama Wataman ak kii di ama Omar uh, jamono bi xam naa yéen a lu nga xam ne moom la nekk di wax uh, bugga nañ tamit rek soo leen duggee ngeen joxe seen expérience si ban amaam ngeen nekkee foofu si biir lii di Europe comme nuñ ko waxee jógee so lan mooy seen advice si players yi nga xam ne ñu ngi fii te yéen yéen a ngi tirin gis nañ ku mel ni Beck euh, yónnee nga nga sa vidéo euh, seen individual tirin boo xam ne yéen ko doon def so bugga naa nag ngeen euh, sànni fii lu important message pour ndaw yi ak clubs owners si boppam lan mooy nekk seen message Beck ak Wataman ak kii di Omar dina ñëw lu mu gën gaawee bu ñu dugalee kii di ama Moussa rek dinaa ubbi pour yéen ngeen bokk si biir programme yi mu wax lu important. Oh. góol dañ Sona. Euh, te su waxee dafa sona dafa mel ni players yi dañ dee pak waaw dee pak comme comme comme moo sax idée bu njëwee nii idée bi is amazing because of idée bi kenn mënu ko xalaat sax because of dem ko ne teams yëpp stop training si fields yëpp stop training xam nga mu ñëwaat dis idea woo góole si xam nga gars yi dajee benn sax di keep leen uh, loolu loolu ëpp ko bu ko seen teams yi ñoo ko war def xam mu mu ñëw idea plus tamit comme nu mu waxee gars yi respect mm-hmm. seen i ne mu dafa mm-hmm. ko SPN goalkeeper ñu fa amee national team goalkeeper leen ñoom Moussa Moussa Kamara mu fa Alaye Niabale mu fa nga am ñoom Yankuba nga am ñoom Ibrahima mm-hmm. ah, Ibrahima Diagne top goalkeeper yëpp mm-hmm. ñu déglu ko di ko débatu lu sa te tamit te tamit bëgg naa daal goalkeeper si daal yonastanga ñu jagaa seen own WhatsApp group mu xeet ko euh, bu bàyyi kenn mm. Alaaji Diop Toldo national team number one euh, Sabi euh, nañ leen dugal ñoom yëpp Sidi ñëpp lañ leen dugal si benn groupe ñu ne ñuy communiquer di mayente xalaat mm-hmm. ñoom Toldo expérience bu ñu am outside sànni ko fii euh, because am nañ tamit ku mel ni Moussa. waaw mos na international. am na lu fa nekk. so foog naa ne dina nekk very good organisation daal. su fekkee organisation seen boppam. waaw dafa nekk organisation te bu nga waxee li dafa gën a exige ñoom sax. unity xool yi nekk ak benn number one. because xam nga su gars yi national team euh, xam dañoo. fees bi dafa continuer kaf kaf bi tri musique bi dafa baax bu ko dafa gën a keep low fit bu ko kenn xamul kan la ñu lifi na kan la ñu résume résume soo su ngay résume rek fitness bu ko góor dafa am fitness a a because always yaa yaa di daanu ko góor soo daanoo so di moo yaa ngi yaa ngi yaa a train nii hmm. dafa fit maa laa wane very good job very good étude nga def waaye ici góole Gambie yëpp da nga tel last dafa nga amoon na ay test match sax ñoom it ne di plaisir biir fii góole kii ba ngay fii kii raa baag loolu def mm. dafa gën a mm. boo gees biir game bi su koy demee si biir game bi léeg daan ne mun a bit lifin cest à nga nekk last man sax nga mun a suy xam nga loolu yëpp si technique bi la bokk so maa laa wax ne good good job booy def nii so mm. nag Cup of the World. It's, it's amazing. Thank you. All right. Low, low is in the uh, uh, lan mooy sa mujjanteli kaddu nag uh, xam nañ dinañ ñëw seet si la. Mm-hmm. si bij bi. waxtu moo xat waaye dinañ am spécial programme bu nga xam ne programme bu yaatu la ndig yaa ngi def lu nga xam ne. Mm-hmm. xel dajut ko woon. kon nag lu ñëw def mooy congrats la bu baax a baax. congrats sam si team bi nga xam ne foofu nga bàyyee ko mooy ama fortune naam ne sax. foogoon nañ xëj na sax lii dina bàyyeekoo euh, si ñu nga xam ne ñoom ñu ngi am top rang euh, si wàllum football fii si biir réew mi comme rek ay goalkeeper euh, national team goalkeeper na si wala ñeneen ak ñeneen waaye dañu gis ku ni yow bàyyee ko euh, Fortune ñëw indi this good idea soo yaakaar naa ne dinañ la gën a yaatal plateau bi gën a waxtaan yow euh, si lépp lu def euh, lii di ndaw kon nag lan mooy sa mujjante di kaddu Assane comme damay si programme bi waaye nag nañ amaat oh. beneen waxtaan damay team football team Assane Ndour Fortune mm-hmm. di di nuyu waa Fortune yëpp Euh, Res Copian Coro Meng tax moom bokk na lu ma gën a indi ci football fii nii mhm. di tànks ki nga xam ne tamit moom laa tuddee président goalkeeper yi muy Ousmane Sagna ñu xamee ko Ous Joseph moom xam nga dane ma loo manqué ci matériel ci bagage lépp naa la ko jox xam nga kerek place yi fi ñu jógee dafa sori xam nga am na lu mu yëkkati ci xaalis jox ma waaw pour ñuy paas ma mottali ah. seen paas toldo mi nga xam ne Modou Diop moo nekk fee tamit maa ngi koy tànks bi beneen toldo bu mel ne BJ tam doon mhm. play post tam nekk mhm. Sweden mhm. moom every two days day jënd gasoil thousand dollars di dem di di collègue ñoom Moussa mi ma la wax ah, nii booy bakaw yi euh, am euh, nga ko Lamine Diallo mu si line bi tamit kii euh, Omar lan ngay ñoom comme ñu xëj na ñu laa yónnee message wala leneen loo xam ne soxla ma ko daal mu nga communiquer ak ñoom ñu ngi laa déglu mu nga wax bek bek ngi lay nuyu ak euh, Wataman Wataman because of xam nga Omar Jaata ak Omar maa ngi nuy nuyu yéen ñëpp maa ngi leen nuyu because of fierté la tamit yéen ñi nga xam ne yéen a nekk outside ñun ñun ñu nekk seen ginnaaw fii ni biir Gambie defe naa soo leen liggéeyee foofu rek ñun tamit liggéey nañ fii soo xam nga xel du doy daal waaw mbooloo mooy doole boo si jàppee rek ñun ñëpp nañ kontaan incha allah jërë ngeen jëf euh, jërëjëf thank you very much ñu dugal ama vidéo boobu noonu rek bu doon trainal ndaw yi su boobaa ñu si Moussa si biir plateau bi su boobaa nag ñu ubbi waxtaan bi euh, dugal gars yi foofu sa bitim réew euh, waxtaan programme bi waaye nag ne Assane dinañ ko bàyyi si biir fii mu toog seetaan lii di programme bi ak ñun su boobaa nag ne dinañ ko dem seede si bij bi xaj na mundi la moo door incha allah si lépp nga xam ne mu ngi ko defal lii di ndaw yi kon ñu dugal short vidéo dellusiwaat Euh, jërëjëf euh, thank you very much loolu nekkoon kii di am Moussa Camara euh, réelul mbir ne nekkoon na ndaw bu nga xam ne playal na Gambia ba si beneen level waaye nag ne all of a sudden against Algeria last game am yi was against Algeria si lañ gis a gis kii di Moussa loolu nag dinañ ko si laaj nu mu jàngatee loolu you know naka la dundee mama boobu noonu waaye lu ñu def rek mooy dinañ dugal ama bekk ak kii di ama watamaan Euh, kii di Omar euh, su booba nag ne xam naa gis ngeen lu ndaw lu nga xam ne rek ne euh, Assane def na ko mooy di tirénal li di goal ki passé si bit bi mu nekk lu rafet wane na rek goal ki passé dañ sona first day bi dañu over sona kon nag dafa mel ni players yi ñoom dañ dee pak booy wata waxal booy. non yow déglu. non asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñu fa nekk ah, Mbaye maa ngi nuyu Star TV fan bi yëpp you know I'm happy to be here again once so nu ah, mu tudd Assane dégg naa Assane la ñu wax Assane maa ngi ko lu mu wax dégg la you si training bu ñu nekk nii virtual training video training bi dañ dee sona trop suñu training bi programme daw la fa dee nekk ñun sax suñoo daw dañ dee sona bi ak training physical li fi nii dafa ute you so foog na comme yaa doon yaa ngi ko doon wax si biir wax bi ah, koji si ak trainer yi mi Gambia ni ñoo war a jox seen training li fi ñu war a def na gis player yi mun a génn at least each player mun nga Gambia moom météo noonu comme fii each player mun naa def individual training soo gars suñ dooree dina easy ñoom players suñ toogee noonu dafa métti trop foog naa seen team yi ñoo war ñoo war a def loolu ñoo waaye soo gisee gars yi ko def tamit xam na am na certain club boo si réel yi dañ mën a jox dara seen play waaye maa si yeneen xam nga mën a jox dara seen play so dafa difficult trop waaye play tamit su nekkee da nga bëgg a jéem bi foog nga sacrifice a lot you know because Gambia doo xool loolu you so yow sa bopp ngay xool foo bëgg a nekk ak so dafa important trop gars yi def training balaa balaa GFA wane ligue bi kañ la moo ma bàyyi sama koto yow wax Umar ak Wataman thank you Lamin hmm. Mbay um, nuyu naa la ak sa um, viewers yi ak um, Kampo Assane ñu nekk ci studio bi maa ngi leen di nuyu di leen jëlem Um, man, I had a question for Asan waaye unfortunately foog naa dem na uh, suma question bi mooy woon um, gisoon naa gaay seen nataal bi seen training bi and I was quite impressed ci luñ luñ doon def noonu and then I wanted to write a story about it so ma try ba contact benn player who was among them in that um, ci big bi why he had a concern, eh, you know, um, the security services or whoever would be watching and then in the guy in England topa, you know, um, because of this lockdown, which is understandable. But from na guy learn like my the platform or how you know they can go out because Hamna eh, uh, Gambia is not like Europe. In Europe, munga am sa own treadmill or anything like in your house. Ngay daw the train, you know, and things like that. I in the Gambia loolu dafa difficult ak ñoom so it would have better su dee gars yi mun nañoo génna you know they can go for ñu dem ñu def training bi you know in an isolation foo xam ne dem ci public bi waaye dem fena freely so loolu laa ko bëggoon a laajte na loolu problème la ci ñoom you know because I think I think they, they need that um, space um, uh, them depth training, you know, because they need to keep on top of their because football fit, is a fitness sport so foog nga keep sa fitness level bi you eh, loolu laa ko bëggoon a waaye su may yomb ngaa tontu loolu daal because man am not in Gambia so you know no idea naka la gaay di nekk foofu you know okay waaw asalaamaaleykum Baye ma ne ko naa leen and nuyu uh, naa um, Gambian lovers yep you know Gambian football lovers here and uh, I am happy to be here so lu ma mën a si Assane um, kàddu mi moom tamit little bit comme like um, man sax gis naa nataali some in Facebook because some of them maa ngi nekk ak ay xarit and I was so impressed seen training you know it's important ñoom tamit ñu try comme di do work for themselves comme Lamine Diallo lu ko waxee am na yame moom su nekkee xaalis nga ne ka di expect Gambia moom pour play football doo ko mën a def so yow da nga sacrifice you know Gambia moom liggéey sax ñuy liggéey si office sa xaalis mënu laa jox xaalis so affaire yëpp sacrifice la rek so foog gaay jóg def seen individual train si ku mun a dawee ay benn forty five minutes def sit ups def press up so daf laa dimbale a lot loo soo ko def si week bi like four times or five times di nga mën a you know sustain sa boppa di nga mën a still ak movement bi ak individual train dafa quite different you know so waaye lu laa gën a maintain loo sa fitness mooy make sure ngay daw forty five minutes make sure ngay def hundred push up push def si top beneen hundred every day you know weekend bi maybe nga rest because yaram bi tam da nga nit pour nga noppale ko nga mën a recover den nga am ne su bés bu ngay ibee fiil si ngay play di nga soona ba tey waaye ba tey da nga gis ne di nga am eh, ah, endurance boo xam ne di mën a def loolu because of bàyyi la sa boppa so lu ma nekk di wax comme spécial goalkeeper bi ak gaay you is very good thing so I know ne Gambia tamit easy wut ak yooyu noonu ak situation am bi so waaye yëpp gëm-gëm la rek ak muñ so comme dama ko dee wax gaay nit ki moom yàlla moom kuy kuy muñ lam dee àndal after dara yombut waaye foog gaay ñu gëm lu ñoo def ñu sacrifice buñ dégga waxi si biti that much you know because Gambia tamit easy wut pour nit survive fa ku fa survive rek jàmbaar nga you so foog nga neglect yeneen façon negative thoughts yi is normal because di ko bugg di dégg di ko bugg di gis ku nekk dina la wax point of view loolu moom Gambia la so always yow yow la ku nekk dina la ñoo wax loo loo bugg a dégg waaye yow toog na yow yow yaa bugg a jël lan nga mun a jël nga dem ak moom so ma wala gaa ñu keep it ñu try to gën a liggéey so you know I think ne dinañ àgga seen seen goal si incha allah ko si ama eh, Lamine Diallo yaa ngi dégg mbay man du ko di dégg mbay de maa ngi dégg waa koy man sa dégg baaro affaire selbi comme ni koy waxee rek since Algeria lañ gëj a gis kii di Moussa kamara lana waral loolu euh, tey nag dinañ laaj kii di Moussa kamara euh, fan la toolu euh, si wàllum lii di ama play football am jamono bi Moussa ñu bàyyi la nga nuyu askan ñu la seetaan fii si Gambie bi. Ah, asalaamaaleykum asalaamaaleykum maa ngi nuyu Gambie bi yëpp ku nekk sa tur sa sant di nuyu everyone Gamtel football club staff management maa ngi nuyu ñëpp daal di nuyu Mbaye Camara Campo. right uh, thank you very much Moussa uh, mu nekk lu nga xam ne rek ne uh, gis nañ sa jaar-jaar si wàllum lii di football gis nañ lu bëri loo xam ne def nga ko ba loolu waraloon sax ñu wala si dinaa sa nga lii di sa réew mooy Gambia waaye nag ñu bëri woon daal gis nañu daal ooyatuñ kenn déggatu sa mbir su du sa club side bi mu nekkoon lu nga xam ne daal bëggoon nañ ko di ko waxtaanee ak ndaw yi ñu nga xam ne at least mus nañoo play si national team bi te waaye gisatuñ leen yow nag foo na Algeria mooy sa last play si national team against Algeria. alright uh, ndax mun nga ñëw wax rek uh, quickly sa jaar-jaar si football uh, bi jamono bi boo toll. waaw man ma football carrière man ko dooree Gamtel loolu man Gamtel laa ma sa place ma football carrière ma life yaa Gamtel from nawetaan Gamtel yaa nawetaan ak ban club la woon nawetaan greenhouse waa team bi daan play Banjul waaye team bi team so dañu naan allow ñu dem play Banjul so trouve foofu noonu coach Alaji Sylla moom ma ko fàtte mukk mhm. because moo may chance bi invite ma si team bi mhm. ma ma chance ba ma mun a nekka tey tànga du ma mel ni tey so ma ngi ko gërëm di ko sant bu baax a baax coach Alaji Sylla mhm. moo a jàppale moo ma isi si team bi invite ma si team bi ma dem pré-saison ñu select ma si team bi so maa ngi ko gërëm ko di bu baax a baax si loolu uh, thank you very much uh, gërëm Alaji uh, Alaji right uh, si indi la foofu si biir lii di am uh, Gamtel uh, nu mu meloon sa force from nawetaan direct to Gamtel football club. waaw from nawetaan to Gamtel because soo xoolee mën nañoo Gamtel fekk naa fa ay place yu mag goalkeeper yu mag fekk naa fa Badou Badou goalkeeper. Mhm. Christopher Allen ak benn Sénégal ak kooku noonu raay na fu mu ne nii foog naa dellu na. ok yaa so man maa ngi foot goal la maa ngi nekkoon lu ndaw. ok doo registré waaye still coach mu ma tub si team loolu xam nga moom gis na li ma mun loolu moom waroon folo si nawetaan bi si nawetaan ma mun ah, bëggutoon ma muuf waaw still mu ngi ma chance ma ngi fa xam nga ba peut-être tamit xale laa su mu mën a xam nga mun nga am time soo soo soo ba pare soo jëlee sa time bi mhm. nga am time pour play si bi so moo tax tamit xam ma relax déglu ko xam ne waa lu nekk time la so amul yàkkamti so moo tax moom na la tey Gamtel football club. alright euh, thank you very much euh, ñu teg ko foofu euh, dellu si waat dinañ dellu ak moom nañu dem nag dellu waa fële fa bitim réew waxtaan ak ñoom Lamine jaalo ak kii di Ama Wataman ak kii di Omar su boobaa rek dinañ ñëwaat si Bek ak kii di kii di Campo. right bu fekkee rek yéen a ngi déglu Bek jamono bi naka la mbir mi mel foofu si biir Italie ndig yëg nañ ne xëj na on the fourth di ngeen dellu tireen individual yi. Euh, boo xam ne boobu government ñoo ko recommend waaye xam na ne yow beeg yaa ngi train because jot nañ sa euh, photo ji si yu nga xam ne yaa jamono bi lan mooy situation bi euh, ak sa foofu si Italie yee mbay ñun suñu bi ñu ngi def virtual training every week bi yëpp so Saturday Sunday lañ dee free mm-hmm. so waaye dafa utee so waxoon nañu ne on the fourth dañoo bàyyi nit yi ñu ñu move sa zone foo nekka city boo nekka mun naa dem waaye on the on the fourth dañu waxoon train individual training dañoo ko waat after change nañ loolu you know foog naa boobu on eleven la moo nekk so benn tey dañoo maintain tuuti fii dañoo am space but naa bi boori on the eighteen yooyu dañoo am you train in groupe so Italy every day leen dee change you So every day they change. Uh, hopefully, swing coach, you don't want last time, we don't am training, you know, video training, you don't want them. Maybe Italy, okay. maybe you share a bit, you know, do a playoff, you know. So maybe you do a playoff because then August. So bala August, you know. So lolu su mun am new season bi mun na benen new na start September. But right now dara taxaw waaye ñu ci kaw train bi ñu ci kaw. Yeah, so uh, Italy right now, anything can happen by musical training. ok euh, Bek euh, jamono bi euh, ñu gis ne lot of these leagues ñu ngi cancel lises rek France ñoo cancel Belgium tamit Hollande England ñoom ñu ngi dañoo play ak Germany ak ak Spain ñu ne dañoo play ndax ragaluñ tamit loolu xew in Italie because pandemic bi Italie la gënoon a hit waa dëgg la Mbaye Italie la gënoon a hit waaye after things yi dem na daan tuuti waaye ñu dee ñoo bari. ok but uh, da gis ne ligi France bi ak Italie bi dafa utee. sakatuma ba pare ak Belgium bi yooyu because Italie fii anything can possible dëgg waaye pour jeexal ligue Italie dafa grand trop de even nit yi ñu dee nii yaa nekkul ligue bi. ok because certain teams ñu fa Marsi Lazio. Mhm. ñu ngi one point different ñoo juubee so Lazio kii nañoo fight ligue ba pare xam nga yan Inter bi dafa xaat trop pour Italie ñu lifin lig bi ba pare xaalis du fa dugal am nga TV rights yi yoo am ak TV rights yi yoo war a fay bu ndoka la waa sax France ak Italie bi dafa different ba England bi dafa different so da nga xaalis bu tiim yi di ñàkk ak xaalis bu tiim yi di TV lu ñu war a fay bi lig bi dafa bari trop so pour Italie man man moom Italie lu ma nekk di gis dañoo yee góor suñu waree cancel lépp dina dinañ xam dina métti nag waaye man su ma gis-gis nag dañoo play dañoo ceekali ten games su des su ma gis-gis because italien ligue bi dafa utee french ligue bi ak yooyu noonu ok so foog naa man su ma gis-gis italien ak England dañoo play alright ok uh, thank you very much uh, Beg uh, ñoo xam ne jamono ñu ngi tuba via Facebook rek kooku mooy Lamine Diallo Beg Gambian number 7 dinañ gën a waxtaan ak moom euh, si lu gën a yaatu euh, si lépp nga xam ne jamono bi rek mu ngi koy def euh, foofu si biir lii di Italie ndig li tamit rek jot nañ ay xibaar yu bëri ne lot of clubs bëgg nañoo sign kii di Lamine Diallo Beck loolu dinañ si ñëw si jeexanteli programme bi wata yéen it foofu in Germany jamono bi nu mbir mi mel yéen on nine la de mbaa duñ coo ci ñaat wata waaw <clears throat> Mbaye waaw ma ne <laughs> waaw ñu ngi fu mu nekk ñun tam ñu ngi si individual training ak ak um, you know personal training ak suñ trainers yi comme like zoom bii leen di use tamit trainer yi dañu monitor ak yu noonu so tam ñu mhm. ngee dem dawi so <clears throat> déggoon nañ ne um, effet bi ñu ngee wax um, effet jaamari ñu ngee wax comme ban bés la ñu door dañ bugg a la gars yi door ligue bi. waaye kon nag gars yi tamit euh, gars yi dañu amaat beneen meeting ñu ngi neen comme you know because gars yi dañ cancel event si yëpp mooy lu nekk la gars yi cancel woon fii so ñu doon xalaat ne dañuy dañoo play without fans ak yooyu noonu so ba tey déet bu jàpp boobu la jàpp waaye nekkaangul hundred percent tamit you know so am na team soo am tamit dooruñ train am na team ne tamit ngi doon door train like five five wala four four ak yooyu noonu so <laughs> we hope for the best we hope ne mun nañoo play at football because of loolu rek lañ am ñun loolu moo loolu moo tax ñu mën a toog fii si Europe bi tey because of football so <laughs> right now we are just waiting for the um, last call from the FA. ok léegi déet bu ñu jël nii dinañ ko mën a def so then su ma loolu rek la ñu xaar waaye ñu ngi train individually ku nekk ñu ngi am personal training ak suñ coaches yi ak stuff so fu mu nekk nii daal ñun ñu ngi xaar daal call bi for the uh, wata naka la moomeen life without fans ak football it's very boring waaw boring moom loolu moom si la dafa aw boring sax because of uh, tey football without fans soo soo gisee tey ñu ne ambiance la rek mooy fans yi mm-hmm. soo soo gisee ñu ne ambiance rek fans ba pare fans itam dafay am lu mu dee indi because of yow sa fans yi suñu nekkee sa gannaaw tey yaa ngee luus wala yaa ngi gis ñu ngay yuuxu so soo doon joxee hundred sax da ngaa bëgg a yow joxe more than hundred watt so without the fan dina gis ne kon tey am na lu fa am na luy manqué daal comme nga ne dëj la moo nekk daal little bit tamit in somehow because of dina xalaat you no xalaat wéet tuuti yoo mën a gis like loo bëgg a gis trop trop trop si game bi tey Euh, ok euh, dina ñëwaat si Wata ak kii di Bek euh, Kampo am na questions pour both Wataman ak kii di ama Bek ma jël laas li kii di Omar Omar. jamono bi gis nañ ne ma life mu ngi difficult trop si football. Uh, yow nag nga nekk ay very good ama follower si wàllum li di sport in general yaa ngi monitor ama boy yi outside Gambia uh, ñu kontaan bu baax a baax congrats la si liggéey bi uh, mënoon ngaa wax ne noo am naa leneen lu ma def du ma weesu suma time di war a xool Bek lu moo def ma binda ko yónnee ko social media ñu mun a xam kan mooy Bek Omar jamono bi noo gisee football under covid 19 ak Gambian player yi nga xam ne ñu ngi in Europe ñoom kese ñoo fa nekk ñu bëri si ñoom. ku mel ni bekk jabaram dellu si na moom kese fa nekk ah eh, weeri kooram dina mbiri trop bekk <laughs> Omar so loolu naka la mën a mel <laughs> um, I can only I imagine and empathize with them. Okay. Um, um mhm. nga war a nekk ci lockdown and then having to reconfigure your whole life again. Mm -hmm. you ne lu metti la moo know, and you can see it, and I'm sure they are all aching to um, get back to football. Yeah. Um, while he, we can only accept that Yala ni protect, so you know we just take it as it comes. Because at the mm -hmm. end of the mm-hmm. day, our health and safety more than are important. Um, football is part of our life. Why mm -hmm. uh, we can just stay as it is, and then we hope that uh, this will soon come to over, and then we can get back to what we love. Euh, euh, Amnathing Omar euh, waroon nañoo play right now waroon nañoo mën a xam suñu fiir si Africa Cup of Nations bi ndig ñoom ko bu baax a baax ak booy yi all of a sudden ne kaaf sax bi moo ñu aayee football lu ma ragal baa ragaluloo ko bu amoon nañ yaakaar ne dinañ play next year Africa Cup of Nations waaye mbaa virus bi duñ aayee play Cup of Nations waaye Paul coach bi Toms jox na ma very bu mu ne ma ne dinañ play Euh, Ida CAF euh, ñu ne comme lu ñuy xolaan euh, cancel nañ ligue bi ñu xolaan lu ñu def France mi gis nañ cancel nañ ko lu ñu def mooy Lyon ñoom ñoo topp ñoo win ligue bi ñu gis ne ñu relégué relégué nañ mu ne xëj na dinañ eggi foofu Gambie ñu ngi force ñu nekk force seko def ñu qualifié dem play Africa Competition mu ne bëggut loolu nag waaye xëj na suñ fa eggee dinañ ko def. waaw loolu moom dégg naa dégg naa bu mu loolu. <laughs> Eh, neex naa dégg nag euh, loolu su amoon kay moom nañ si kontaan bi we want to get into that African population euh, because dama lay wax loolu all the time ma ne Gambia are just one game or one tournament away ahead of uh, away ñu egg si world stage because we have the footballers am nañ mm-hmm. quality bi waaye xëy na plateforme bi mooy mooy problème bi parce que soo ko seetlu Sénégal noonu lañ nekkee dañ daan ñëw ci African Cup yenn saa yenn saa duñ ñëw waaye buñ demee am euh, break up into the World Cup si léegi waaw waaleykum salaam ok and staying at world stage because si la focus bi ñëw ci ñoom da ngaa gis ne Gambie suñu amee loolu tamit dafa ubbi bunte yu bëri waaw football you know nañ jox plateforme boo xam ne you know the scouts will be interested you know what's happening in Gambia because depuis 2002 Sénégal bu ñu demee ci World Cup bi bunte yi si study World Cup, a lot of their players came to England So from that time on, scouts focused on Senegal. So okay. that same football vitamin Genayo. And now Senegal are one of the best uh, footballing nations in, in Africa. Absolutely, absolutely. so loolu ñun luñ mun daal suñ mënee dugg ci African coordination I mean it's all good am nañ yaakaar am nañ yaakaar bu baax because booy man seetaan naa game bi against Congo in Gambia because fekkoon ñëwoon naa Gambia fekkoon uh, suma paa paawee fa gaañoon so ñëw Gambia seetaan naa ko I was very very impressed so gis naa ne daal we we have booy ñu ngi xiif te am nañ opportunité bi te Cup of Nations bi moom qualifier bi incha allah uh, we will come good incha allah all right uh, Kampo Beg mu ngi fa Watamaan kii di Ama Omar Euh, benn tey guys euh, balaa ngeen a dem euh, si Moussa ñu ngi waxtaan ak moom bi ko gisoon nañ ne you know ku mel ni beeg war ngaa xam Moussa Wata xam ni ko baax a baax gis nañ ne Oliver Solin rek mun ta pénétrer si any catégorie si national team bi Gamtel lan mooy nekk seen word of motivation to watch Moussa pour mu gën a mën a focus waaye loolu si kanam tuuti la moo nekk rek Kampo dafa am suñu question nga xam ne bëgg nañu koo laaj Kampo dóoree ko beeg léegi uh, di la wane soit very we are very sorry di uh, hard hard time boo nekk uh, dem nii right now si biir Italie because pandémie bi affect na a lot because xam na ne football mooy seen job te football drogue la si yéen so nekk nekk di dundee nii right now because xam nga rek every yaa ngi jóg yaa ngi train yaa ngi di dundee right now with xam naa ne affaire isu nag drogue la but nobody know when football will come. But hang life also is, is, is, is, very important. So, naka naka do need right now. Both questions are like, Molasan, Bubla like a ah, Ottoman time. So, Malalatan, naka do need right now at this moment. I know you, <laughs> well, uh, Campo, oh. it's not easy though. It's not easy. two months, you nekkulo di mhm. train nekkulo di play football so dafa metti torop you know so but mhm. alhamdulillah lii tamit you know foog naa yàlla xam nga am na lu mu def you know so jaam yi dañ ko war a nangu rek you know because lii dafa di tax na tamit nga gën a am doomi adama gën a jege yàlla ba pare ñu tamit ñu mhm. gën a am time for family dégg la football lañ la waaye ñu ngee ñaan yàlla lii mu dem you ñu dellu si luñ bëgg because dafa metti torop foog kii lu dee génn metti na torop you know it's mm-hmm. difficult because man right now dama lose hope sax. Mm-hmm. waaye life goes on. deuxième tudd wota man deuxième question moo laaj ak bëgg loolu laa laajte. wota wota yàlla ma ne deuxième question bu ma say la bëgg la comme loolu la maa la doon right now am nañ ne football mooy seen euh, job. uh, football mooy seen everything te football si yéen just like a drug because of soo ko play wut xam nga yaa ngi ko miss everything ñëw so suddenly everything hmm, stop xam nga academic so yeah it seems wata wata dem na wata uh, dem na yeah ah, maa ngi gis uh, bëgg moom xam nga rek right now yaa ngi ni social form xam nga rek things things ñëw demee nii bot ñu laa ñaanal rek force boobu ko moom moom kon ma la my intention too you to play in Spain to, to Real Madrid against Barcelona or against Finagasa Atletico Madrid mbaa waaw man daal su ma indi daal I don't know but God knows the best <laughs> avec dama bëgg nga against Real Madrid nga against Madrid Sevilla euh, Atletico Madrid Bilbao yi so ma su foofu la nag my next target for you su ma ma next player kay to play in Spanish euh, La Liga daal man suma dream loolu la daal. bilaay bilaay te dream laa ko leen. loolu lañ nekk di góorgóorlu play hard. fa yàlla moom yow Gambia flag bi high you know. loolu mooy suñu main objectif waaye yàlla baax na incha allah. waaw yàlla lu des rek. right uh, ok uh, Beg uh, still rek danaa bëgg nga xool doon nga nekk gum fa rek balaa waxtu dugaat because bëgg naa nga wax lu ndaw rek si ama Moussa Camara Moussa te nekkoon na sa teammate if I can remember Moussa comme wax nga rek xaar nga trop in Gamtel Euh, tey nag ba loolu feeñu euh, nga nekk number one goalkeeper bañ tey gis si national ama team bi naka la mel ba Moussa mun a pré-trade war a play first choice ba mun a pré si national team bi. waaw sa dama ko waaw soo xoolee suma performance moo mhm. noonu Banjul Pygmy Zonal seen team bi seen zonal team bi. compete ñu dem ba final yàlla daf ñu lose against Bakau. 1-0 mm-hmm. so foog naa from foofu noonu la ma koy on a 17 bi trial. Mm-hmm. yeah métti woon na trop because place bari woon nañ instant so from foofu noonu trial bi ñu jàpp si def ñu bokk si um, bi si 30 man squad bi ñu ngay mujjee select so from foofu noonu. so koo gis ne daal xale bi nii xayatien fu mu ne nii ma registré ko si team bi boo su ma ko defutee indicien mun naa move soo foog naa after loolu loolu mujj am du ma coach mu registré si gam Gamtel football club alaji si la nu mel ba nga a prédire si national team bi national team bi moom ay jaar-jaar rek soo xoolee since ma nekk si under 17 bi man daal football moom dama ko dama jàppee sama carrière yaa because dama bàyyi everything so noonu si on a 17 bi qualify round si yëpp maa play first choice ñu demee qualify because soo qualify nag tam métti woon na because first game ñoo soroli yoon la woon home ñun nga fii ni ñu dem awee ñu second game bi pour qualify si tournament bi mm-hmm. ñoo gaana la woon waaw waaye first bi awee la woon awee ñu loos to Ghana 3-1. so second leg bi mu woon mu mu woon home waaye yàlla def ñu win game bi 2-0 di kontaan si Oje moom boo ko def ñu score goal si ak Alassane Camara. Oje waaw Oje Omar Colley waaw nekk Sampdoria right now. ak Alassane Camara waaw. Mm-hmm. waaye soo leen game amoon na ay jafe-jafe trop. Mm-hmm. game bi mu just started si minutes amoon naa injury serious suma jéebi. 4 minutes ma toog. ñu dem si biir game bi ten minutes ñu amaat beneen injury mhm. suñu central defender bi Lamine Samata ñu ko woowee bas ah, mhm. moo tax mu génn na si si game bi so affaire si métti woon trop suñ kaw so waaye sant yàlla rek ñu mun see génn waaw mu ngi win Ghana mhm. si lañ mën a qualifier si tournament bi. bii di Algérie. alright euh, ñu gisoon ne trophée ban trophée nga winal national team bi. waaw winal naa Gambia under 17 championship in Algeria. Good. amoon naa best goalkeeper si tournament bi. Mm-hmm. yeah so loolu tamit daf ma dimbale woon suma carrière bu baax a baax a baax so after demoon naa ba fii fu mu ne nii léegi xam nga war naa gën a am na yokk bu a baax. because of génn Gambia. yeah loolu moom loolu mooy woon suma taget waaye xam nga rek jàmm moom da ngaa liggéey rek. nga bàyyi yëpp si loxo yàlla. so yàlla yi dogal so affaire si demee nii waaye maa ngi sant yàlla ba tey still mu ngi may kàttan bi ma doole. mu napp lépp booba tey so di gërëm rek yeah wel naka nga dundee loolu nga playal Gambia ba win trophy euh, nga expectoon ne sa carrière mu ngi war a jóg understand nga euh, penetrate on a 17 la euh, ñu expect la si on a 20 wala on a 23 wala national team bi lan a waral Oleh Fashadin foofu la affaire yi am kak mënut a dem. waaw su ma fàttalee su ma fàttalee ko after on a 17 bi invite na si on a 20 bi. waaw opportunité bi ma ngi ñaabali reer na am ngi ports mhm. waaw ma nekk ak gars foofu na sama opportunité bi waaye ma gëm senior waaye man daal lu ma amoon lu ma amoon affaire mooy job understand loolu ma ñëwee loolu laa def perform coach bi gis ne waaw ok mën naa ko doy pour play si kanami ñaabali mhm. so maa ñaabal ay ay leen so loolu joxoo ko benn problème so ñun nekkee noonu si qualifier round si foos dem ñoo sorole na woon fii ñu dóor leen na three not su ma fàttewutee ñu dem sorole yoon awee second leg bi ñu draw zéro zéro bi against Ivory Coast la woon waaye boobu noonu first leg bi home ñu draw zéro waaye soo xoolee stade xam nga coow ngi bari woon performance yi baaxut fan saa ngi coow performance yi baaxut mm. waaw di gars yi jam ñoom su win amul waaw so waaw loolu moom football <laughs> moom moo xam nga moo mel noonu waaw coow baa ngi bëri woon bi waaye ñun xam nga ñu xam lu ñu xam rek waaw gëm na team fa so second leg bi ñu dem biir Ivory Coast yàlla def ñu win game bi 1 ñu qualify to South Africa waaye tamit foofu tamit amoon na fa ay problème bu baax a baax soo xoolee préparation bi. Hmm, hmm. waaw amoon nañ problème bu baax a baax si préparation bi. dafa bonoon soo xoolee bu ñu jógee fii dafa lii dem Sénégal balaa seen visa di génne jëloon na time soo da gis ne dañu àgg Africa tey fii yëpp si élection tardé bi ñu play suñu first game against is it Ghana ou Cameroun ñu lose one zero. ok nga amaat beneen two days booy rest ñu waat sa second game against um, Ghana. we draw one one suñ final game bi boobu woon win qualifier la mhm. ñu nag Nigeria waaye nga gis ne team bi foog naa ñu ñëw mujj aga si si tamit foofu biir saako la foofu préparation bi xam nga comment daf ñu disturbance trop waaye nga gis ne ñoom ñoom Nigeria ñoom Ghana ñoom waaw loolu daf ñu joxoon problème bi after mu ñu ñëwoon a qualifier si group stage bi ñu toog si first round bi am suñ xëy am naka la wax suñ golbas trainer bi franco italien bi mm-hmm. mu noon am naka la train si national team waaw moo ñu amee woon mm-hmm. franco mm-hmm. mooy ah, bu fekkee ne Paul Put soo waaye gis na li ma mun soo lu mu def mooy daf ma oo mais ma chance at least invite ma maa ma gis national team bi ñoom Padembo fekk naa fa ñoom Toldo ñoom Christopher Allen waaye style li mu def mooy boolema gars yi pour na am fit bi xam na lu waaw hmm. comme hmm. xam na ne time dina ñëw na am time pour placer loolu la def euh, ndax da nga feel disappointed because ñu gisoon gol ba tiré na koo xam ne xam na loo mun waaye xam na ne mënu noo printer si kanami euh, Badembo ñoom yeneen players yi waaye mun laa indi seen ron pour nga jàngee si kooku dem na nag gisatuñ la lan nga feel da nga feel disappointed wala da nga foog ne something went wrong non non man daal affaire daal wér ma ko si kenn waaw so man dama gëm ne daal xam nga ay. ndogal yàlla waaw ndogal yàlla la. ok moo tax affaire daal wér ma ko si si loxo kenn. ok alright euh, am waxtaan bu yaatu ak kii di Moussa bi ko ñu ñëwoon ne waxtu bi jeex na euh, jamono bi waaye euh, nañ dugal rek Bek ak kii di Omar ku nekk sànni si two minutes kaddu rek si Moussa Camara lan mooy seen kaddu si moom ak lan ngeen ko encourage Bek Moussa lan mooy message bi pour moom. Baye Moussa maa laa nuyu. Moussa fay naa la ba la bu baax ma nekk di wax Moussa yi non parce ñun ñoo ñun seen na seen ñun xam nañ moo moo njëkk a ci national team bi foog naa mistake yooyu noonu ñun dañ dee ñun maa ngi remember Gambia and Bola man chance boobu chance bu réy si saaga nañ ma def leen everything but naa coach bi believe na foog naa koo gis it koo koo bi tamit daf lay count yooyu yaa ngi understand foog na man su ma gis-gis dañ ko dee wadde moos dañ ko ko dee jooyee de lu dëgga dëgga ko dee wadde wata mu ngi nii sa su ñëw moos luñ mun Gambian goalkeeper ñu bari mënuñ ko so yàlla dafa am lu ko may so mistake bu ñu defoon you know loolu romb na passé na moos xaleel la football la xam ni yëpp football am ñëpp dañ di def so moos kay jàmbaar la because lu dal moos man su ma daloon Gambia man moom dama stress sa bàyyi football waaye still now you know mu xam nga góor góor mu fa di dem you incha allah dina ñëwaat si national team because Gambien la national team kenn moomu Gambien ñaa ko moom so as mu ngi am na chance pour national team bi te dafaa ñëwaat so man maa ngi ko wax ne keep it up you know mu Moussa Baye mu dóor quoi because goalkeeper mun ngaa dem ba forty goalkeeper moom mooy loolu so xam nga mu gën a góorgóorlu booy play. So dinañu inshallah very soon. Okay. All right, thank you very much. Wataman. Watu jeena euh, lan mooy sa message pour moom. waaw Mouss ma ne nuyu naa la suma waaja wul lu ma mun di wax moo euh, man play naa euh, si national team bi spécially on a 20 bu moo explain qualification bi moom dafa miss beneen bi sax ñoo Africos dañu noonu wan North Gambia foofu noonu you know ñu dem Afrique Coast tamit ñu naa beneen win ah, beneen one not you waaw match bu bu ma match bu ma la woon nag match bu métti lañ play woon foofu wax baa ngi bëri woon fekk naa sax man dama dama sacrifice sax ñibbiwuma after ma am pour waxaa suma team bi toog ñu dem ba Afrique Coast one moon laa toog after Gambia after team bi happy pour make sure Gambia ñu a twenty boobu noonu ok man dama mujjee toog soo moos moom ma mu di wax comme jàmbaar la man tam comme Lamine Diallo ko gis ne ko ne te xapp nañ ñu bëri Gambia bàyyi nañ football

so ñooñu seen carré is like mu ngi nii gars yi dañ koo kotof noonu. waaw comme yow yow yi dañ la fàtte yow yi dixième dañ la fàtte. Ah? waaw man di nga wax ne man waaye ba tey man man comme man fayta la comme ni ma la koy mm-hmm. nga comme man maa ngi wax ne muus ba tax ma fayta ko maaj boobu man damaa pour sacrifice Gambia ma toog one month ñibbiwuma Amérique ma meeg soo Gambia ñu qualified mooy biir Africos ñibbiwuma congrats so maanaam ne fii ne rek ku nekk rek yàlla nañu yàlla feeñ ñu ñëpp suñu xol yi comme ni ma la koy Gambia moo tax ñu jóg ñun ñëwuñ ne ñun dañ ko def pour prap anything te ñun ñu suñ koo toog di ko waxtaanee feneen ak feneen soo dama miin ne rek comme xeex la rek comme muus nu ma ko waxee ne comme Lamine Diallo woon yow xeexal sa xeex nga continuer sa continuer life moom dara dara jógu rek taxaw soo you lu ma mun war a ñun koo ji si ak ñoo war a am na ngi Gambie génn a fay ñoo am ne mënut a dimbale mënut a change dara seen life waaye encouragement ak loof mooy everything man loolu laa dee fii nit ki mën nga am xaalis te xaatiwuloo waaye nit ki mun ngaa ñàkkaat dina am loof da dem soo man dama fi ne encourage boobu noonu dañ ko war a jox gars yi soo muus moom dama ko ne tamit di ga di ga yal ko yàlla ibir wërsagam jox ko tamit muñ muñ bu mu am you know su dul you know Gambia sax mu am leneen loo xam ne tey dina mun a you know amee boppam ak famille am Uh, jërëjëf jërëjëf Wata uh, thank you very much uh, lastly rek Omar quickly ñu jël Omar rek si one minute rek ñu taagoon ndi wan nañu ne waxtu bi jeex na tàkk Omar lan mooy sa message pour Moussa ak Wata si boppam because dafa mel nii dañ leen fàtte ah comme ni ñu ko waxee. <laughs> naa la. Eh, fay ko. Ah, man loo ko wax rek mu gën a góorgóorlu rek because football moom dafa ñëw a mistake. they, you know, we play football more than mistakes. Mm-hmm. At the end of the day, you make a mistake, why, you you just put it at the back of your mind and continue doing your lu nga war a def rek. You know, te xam naa ne incha allah yàlla dina ko jàppale. You know, su mm-hmm. continuer noonu because there were a lot of great footballers yoo xam ne def nañ big mistakes in their mm-hmm. careers. they cost uh, national teams or send clubs the games. Why, at the end of the day, they moved on and then am naa yaakaar ne moom it na mën a dem you know comme one of the mu ñëw mu ñëw a nekk uh, suñu national in the allah na Omar uh, thank you very much Kampo quickly rek li ñu waxtu jeex na uh, tàggoo because Moussa dañ am war na ko ma doon di comme hmm. trois wala kaw business ñoom seetaan nañ suuf bi te am ne ñu trop di gërëm tamit Assane. waaw ah, fu mu ne la wax waaw waaw waaw Assane Ba suñ ko. Assane tamit dinañ ñëw Assane Ba waaw ñu ngi ko tamit nuyu tamit ah, tamit ah, ñun bu leen ko am ne jërëjëf ñu doon seetaan rek si kër bi ak si online bi Facebook yi ñu lay gërëm plus tamit di gërëm ñoom Bek. ko sa ko sa taal Koso waaw origine bi Isou ñoom Omar Diatta ak kii nag Wataman tamit ñu ngi gërëm gars yi dégg nga ne Mouss lu mu wax so I think xam nga rek déglu nga ko way la still na di ko encourage ak Waterman ak Omar still euh, na na gars na na belief ne dina ñëw bu ko góole daf leen dem comme déglu nga ko way góole ba forty years mm. mu ngaa play na never give up ñu team bi sa agence Burkina Faso so play na foog début bi dafa draw ah one one la demoon so mistake bi bunta ñu sideline ko Yeah, so right. you have to involve in both system, the Gambian. All right. Yeah. Uh, uh, uh, rek Waaw li may def mooy ba gërëm ma ñaari waajur yi di jàngal rek si jàppe bi yow ma soo si du ñoom du dem so ma leen a bu baax a baax ba pare lu ma wax ma pensé mooy still amul lose hope ñu ngi si kawam nañ ñaan yàlla rek yaa yàlla baax na inshallah. right uh, jërëjëf thank you very much uh, kontaan bu baax a baax rek gërëm Lamine Diallo Italie uh, gërëm Wataman Jamani Omar Jamani bentey rek gërëm bu baax a baax kii di Lamine Menga Ndey caméraman Lamine mooy moo yër lépp lu xam ne si xatum caméra bi la suñ olli caméra liggéey bi muy ndey ñu gërëm ko bu baax a baax si liggéey bu rafet bi boos image yu rafet yëpp moom moo ko génne euh, tànk bu baax baax kii di Assane euh, suma boos kii di Mistaba euh, moom moo jaar si bagage yi kon gërëm ko bu baax a baax a baax gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi di Star TV noonu leen ko mën a amee rek jëlee leen Star TV TNT receivers yi ñëw leen fii si biir di kër gi di ngeen ko mën a am wala ngeen toppañu si ama Facebook kon ñu jox leen dox daje ba next week incha allah bu ñëwaatee rek dina indi more players uh, foofu si biir lii di bitim réew ak fii si biir lii di ma réew mi kon jërëjëf man la woon ak kii di Ibrahima Kampo Diatta bye bye